بسم الله وعلى ملة رسولي ومنهجي القديم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi baaxee waa diwaan bi ak ñi nga xamante ni bi ñoo di Sénégal yi ak fu ñu mën a nekk ci réew mi bitim réew ak citoyen du monde yëpp ndax lu baax moom ñëpp dañu ko yéene ni ko ku tedd ki digle dañuy wax ni boroom xam-xam yi dañuy wax ni cant gu dëggu moo gën a féete kaw jàmm yàlla yépp ndaw ñi ma bëgg leena baaxe xeetu cantiin xeetu cantiin ndax cant dafa am ay façon dafa cantu yéene am cantu wax am cantu jëf maanaam di ko yéene di ko doxee di ko pratique nga defee dëgg la wala fii dinañ wax naan alhamdu cant yi ñeent xaaju cant yi ñeent dinañu koy wax waaye Eh, cant moom mën naa ëpp sax ñeent mi nga aju ci rek eh, façon bi nga koy defee ak li tax nga koy def ak yi mu conserne moo xam cër yi la moo xam lu mën a doon waaye bokk na ci cant yi nga xam ni dafa gën a matale mais bu fekkee dallu nga ba yeewu boo yeewoo bala ngaa wàcc sablal nga xam ne dangay sant yàlla ci yeewu gi nga yeewu léegi nag am na aw cantin mooy boo ko waxee ni ko fekkente ni ku mel ni man nga nga xam ne doo nangu di jéem a jubali ci yàlla direct boo ko da nga koy wax ni ko kat yow sama borom maa ngi jaar ci ku tedd ki ci cheikh ahmadou bamba xadim rasul sama cant ndax moom da nga ko nangul ba noppi te man wóoluwuma sama bopp maa ngi làqu ci moom di di sant le di sant di sant le cër yépp maanaam jëmm ci manam jëm ji mi ngi lay sant waaye nag xam nga bu fekkee yeewu nga moom xol bi ak xel mi kon ñoo war a njëkk a sant waaw bët yi topp ci ndax yeewu nga di xool te mënoon ngaa yeewu bu ko neexoon mënoon ngaa yeewu ba noppi te bët yi duutu xool waaw bu dee loxo yi itam mënoon naa bañ a yëngu wala cër bu ci nekk daal nga ne ko maa ngi maa ngi santal cër yépp ci limu ñii sant ñëpp ni ñu toll ak limu ñi dul sant ni ñu toll waaw bu ko defee dee dal di matale fekke da nga don nak ko xamanteni bi tawhid ya tawakkul yalla da la ko baxé bu ko defé bu la nexé di tuddu cër par cër tuddu napi yi tudd nopp yi tuddu bopp bi gi rek bir bi tanke ak loxé ak lepp wa ni Alaaji Abdou Aziz da ñane euh khalifa bi fi nek sax di Serigne Mbaye Mansour dina di ñane ñaanu detaay yoy waye ko du ñu demee nun nga xamni nun Eh, ku demee ni man nga xam ni moom wóolul boppam nga xam ne day fekk rek li ko tedd ki ñaan ba mu nangu rek mu jéem a xool nu mu ci amee waaw mu jéem a xool nu mu ci amee ko defee ñun moo ñuy résumé dañ naan jëmm ji daal ak cër waaw bu ci nekk daal mi ngi lay sant lim bu toll ni ñiy sant ñëpp ak lim bu toll ni ñi dul sant ñëpp lii nag du càggee na waa diwaan rek laa ko wax ndax lu baax moom lu baax moom dafa war a tas ci ñëpp ab jullit lu mu yéene boppam da ko yéene moroomi jullit yëpp waaye damay bëgg xale yi di leen jàngal xeeti jaamu yàlla yoo xamante ne bii day roqe day roqe te sew ba noppi bari njariñ waaye nag ñun dañ dul mën a gis fenn njariñ fa dul ci ku tedd ki waaw ndax yàlla daf ko nangul ba noppi lama xayaat yi lil xayaatillaahi dëggal na ko wa deqtu bi rabbil arshi zil juudi wal afwi ma al mustafa dëggal na ko loolu moo tax ñu koy baaxee xale yi moo xëy daal yow ci sa bala ngaa jóge ci sab lal waaw man ne alhamdu wa shukru mahandillahi ala nabi wala di abdillahi man caa teg yi ma wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu